Hey kii ndawal sëriñ bi la ndax li mu tax muy ndawal sëriñ sëriñ bee ko samp sëriñ bee ko jàngal sëriñ bee ko digal sëriñ bee ko yar sëriñ bee ko yor mu wéññi waat nag ñi daa bëgg loo xam ni réew mépp la koy defal muy réew mi waaye da koy tàmbalee ci département bu Touba ba ñu xam ni léppam ci sëriñ Touba la koy tàmbalee li nga nekk département bi ensemble la jëm su jógee ensemble ñu doon moom ba pale dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak moom ngir sëriñ bi ngir Touba ngir defar Touba jàppale ko te yàlla rek tax. ñii naan diw sangam laa àndal diw sangam laa àndal diw sangam laa àndal gannaaw nag suñu mag ñi amoon na ca ñu xereñ xereñ goo xam ne fexe ba jël ci ñenn ci suñuy doom fexe ba jàngal leen li ñëpp jàng ba ñu xam ko. ba mën yor lu képp nit yor candidat yi nga fi dégg kenn ab nit a nekk ci ab dëkk samp leen moom mi nag mooy ki nga xamante ni moom sëñ Tuubaa rek a tax ci dëkk bi la dëkk fi la juddoo fi la yaroo jàngi ba ñëw lim am lépp ci dëkk bi la ko investir doomu dëkk baa ngi nii incha allah incha allah ko jàpp waaw di saku élection départementale am nga carte d'identité waaw voilà dañoo bëgg nag ku ñu votel ci département yi maanaam élection yi ñu di ñëw suñu suñu xob mi ngi nii mooy xob bu verte bi. waaw. jeex na kon amul bàyyi. loolu leer na. seen doom daal la ngeen di da ngeen daan jéggaani fu nekk. loolu leer na da ngeen seen doom ci biir dëkk bi. tëdd waay dil dem kenn mënu ci dara barke sëñ Touba da ngay féete amin amin ci kaw nga wallahi taala kaw ren ngeen jëm ca kaw ngeen jëm fii fii yaa ko moom fii ne ci fi ba parparloo ñun bàyyi nañ parparloo xoolatuñ benn parti ñëpp ñu topp ci ginnaaw ñu ko gis ngeen jàppale parce que li ñuy joxe ak Bougane ak keneen mën nañ ko ko jox moo tax duñu bàyyi kenn sensibilité bu am solo ngeen ñu bëgg ngeen jàppale ko le 23 ngeen joxe jëf ñu ginnaaw du ko ñaar yaa samiu yaa basiir yaa xayra mujiib yaa hakamu yaa abdul latif bu doon alal képp wala bëggub fal wala bëggub cër mënoon na ne di dugg ci gouvernement bi ku nekk xam ne ne opposé wu nga koy def lu mat juróom-ñaari at neexut waaye nag boo bëggee dara ngir bëgg a sa dëkk da xool mag ña fi jaaroon lañ doon def nga def ko muy takk sa biir dafa takk biiram nag kon yéen tamit na ngeen xam ne ndax fi mu démissionné muy administration bi gën a kawe ci Sénégal nekkoon fa di fa liggéeyee dafaa génn démissionné ngir defaral dëkk bi kon kooku nag tey waa Touba bu leen gën a gore nañ ko jàppale te xam ne sunu doom la lii daal mooy mooy yitte la 23 sax yàlla yàlla may lii lii lii li wax sama rakk ji li mu wax moo am dañoo am ci dëkk bi te politiciens yi nekk ci dëkk bi ñu ci bëree bëri dañuy wax wante jànguñu ñàkk jàng nag ay pexe ngay jéem a nas te léegi réew mi ñëpp a yeewu mënoo naxi pexe ba nax kenn mënoo nasi pexe ba nax kenn njàng ak xam-xam mooy doxalub dëkk na ngeen xool nag ñiy wut mbir mi juróomi nit lañ ngeen xool seenum njàng ak seen expérience ak lan lañ jot a def ci àdduna ci seen yëfi bopp ba xam nag mën nañoo yaatal loolu pour askan wi loolu dafa am solo programme bi itam ngeen xool ko yéen a ngi ci mbirum. Euh, transport transport. am nañ ci luñ ci développé ci programme ci transport ndax euh, dañu wax ne nit ñi nga xam ne dañuy dawal wala mécanicien yi buñ demee ba nekk mag. duñu am retraite dañu obligé di continuer di ñëw di di di di di toog ci garage yeeg yu demee noonu pour mën a am luñ suturloo alors que seen doole yëpp dañ koo def ci liggéey donc mënoon nañ ba ñuy liggéey ñu jëm leen a organiser na fonctionnaire bi amee retraite wala kay liggéey ci privé bi amee retraite kiy def transport wala kii def menuiserie wala kii def leneen ñu organiser ko jox ko retraite ku liggéey rek ak façon liggéey boo liggéey état dina ko organiser ba nga am retraite loolu mooy solidarité dafa am façon jàngoro yoo xamante daf leen di dal ndax dañuy toog toog bu yàgg ay dem ba ay hémorroïde wala ay tension ak yu mel noonu di leen dab loolu la tubaab di wax médecine du travail maanaam daa am médecin yoo xam ne dañ leen di jagleel ñiy liggéey liggéey bu nekk dafa am ay jàngoro yu ci lié ndax toog bu yàgg day indi ay day indi coono. léegi nag balaa lay jàngoro bi di dal ñu lay former di la wax ni nga war a def di la joxi garab bu la dalee itam ñu jox la médecin boo xam daf la war a mën a traité. loolu nag compliqué wul benn médecin ngay recruter ku xam mbir mi muy liggéey ak nit ñi. bu ko defee même bu fekkee ne toogu fi sax tout le temps muy jox rendez bu nit ñi ca conseil départemental ba nit ñi ñëw di ko fa seet ñetteel ba ci lay jeexale ndax am na yeneen sax actuellement. mécanique dafa changé mécanique léegi électronique def ci bari mécanicien yu bëree bari boo leen joxee seen oto bu fekkee électronique la dañ koy yàq ndax formation bi am ñoo am ay jumtuwaay mën nañu am ay nit ñu leen former bu ko defee ñu daal di def recyclage recyclage loolu conseil départemental mën na ci wax te laajul xaalis bu bëri du ay dige xam-xam ak yéene askan wi rek moo koy mottali jërëjëf président